ñaar Korent saar ndegam nag jot nañu ci dige yu mel nii samay soppe nanu selal sunu bopp ci bépp sobeeb yaram walla bu xel dund dund gu sell ba mat ci ragal yàlla yaatal leen nu ci seen xol tooñu nu kenn ñu kenn naxu nu kenn jël alalam teg leen tooñ taxul may wax lii ndaxte wax naa ba noppi ne yéen ngi ci sunu xol ci dund ak ci dee kóolute gi ma am ci yéen rëy na tiitër bi may jële ci yéen rëy na sama xol sedd na guy dama fees ak mbég ci bépp coono bu nuy daj ba nu àggee diiwaanu masedowan noppaluwunu waaye coono bu ne daj nañu ko xeex ci biti njàqare ci biir waaye yàlla mi defal xolu ñiy yogorlu ndax tiis defal na sunu xol ci ñëwu tiit te du ci ñëwam rekk sax waaye ci li ngeen defal xolam yëgal nañu seen nammeel ci nun seen rëccu ak seen farlu jëm ci man ba sama mbég gën cee yokku su fekkee ne sax bataaxal bi ma leen bind dafa leen a naqari rëcceetuma ko ci lu jëkk rëccu naa ko ndaxte gis naa ne bataaxal boobu teg na leen tiis doonte sax ci diir bu néew waaye sama xol sedd na léegi du ndax seen tiis waaye ci li mu tax ngeen rëccu tiis wu jóge ci yàlla ngeen tegoo te àndul ak benn loraange bu bawoo ci nun ndaxte tiis wu jóge ci yàlla dina jur réccu guy jëme ci mucc te réccu googu laajul gëstu waaye tiisu àddina day jëme ci dee seen tiis wi jóge ci yàlla gis leen nag li mu jur ndaw njaxlaf ak lay ak mer ak ragal ak nameel ak farlu ak bëgg a yar ki tooñ ci seen jëf yépp wone ngeen ne seet ngeen wecc ci mbir moomu kon nag su ma leen bindee ki tooñ taxul ki ñu tooñ it taxul waaye dama leen a bind ngir ngeen mën a gis ci kanamu yàlla cawarte gi ngeen am ci nun te loolu seral na sunu xol sunu xel dal na rawati ci li nu ànd ak tiit ci mbegam ci li ngeen seral xolam yéen ñépp su fekkee ne tiitaru woon naa ci seen mbir ci kanamu tiit rusuma ci dëgg rekk lanu leen masa wax noonu it la tiit gise ne li nu leen doon sedd lépp dëgg la te mbëggeelam ci yéen gën naa yokku bu fàttaliku ni ngeen ko déggale yéen ñépp ci li ngeen ko teeru ànd ak ragal ak weg bég naa ndaxte xam naa ne mën naa leen a wóolu ci lu nekk